الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk yi jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal Muntaqa sunu borom yàggal ko fi ba naal yi mu naalal islam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp ak kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di ziare kilifa gi nga xam ne mooy borom penc mi Serigne Cheikh Tadou moom Serigne Bara Khourédia moom maam borom Cham noo ngi koy nuyu di ko ziar di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko ci kanam njaboot gi fi dëgëral ko ba naal yi mu naal yëpp yéen di ko liggéeyal way juróom yi mu nekk ko ni ko bëggee di ko ñaanal mbooleem njabootu Sëriñ Bara Xuré Jili yëpp di nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne it ñu ci jataay bi ak ñiy dégg suñu kàddu ak fu ñu mën a nekk di sant yàlla borom bi subhanahu wa nga xam ne defal na nu ngëneel defal na tawfiq ba ñu si ci bés ci jataay bi nga xam ne dañu ko tànn ngir waxtaan ci ak bokki taalibe yi fàttaliku dund ak taxawaayu Serigne Bara Khourédia mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey te fàttaliku nit ku baax ay ngëneel ak teddange yu bare bari nekk borom taxawaay bu bu rëy boo xam ne dafa marqué jamonoom. ay jëfam it nekk jëf yu ràññeeku yoo xam ne képp ku sunu borom may ab gis man nga xam taxawaay boobu ak jëf ji mu di koo xam ne it lii borom xam-xam yi wax ku ñëpp xam la ci taxawaayam waaye fàttalee moo mënul ñàkk ndax borom bi subhanahu wa taala moo waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa del fàttale kon dañuy nafaraat di fàttali mu di koo xam ne sunu borom daf koo tànnal askan wu sell ndax askan wu sell ci la bu baax bu barkeel di bàyyi ko ngir borom bi subhaanahu li mu wax ne wal baladu tayibu yaxruju nabat waaye it tànn nga mooy boole ko ci Cheikhul way juróom di maam borom Cham muy Serigne Ahmadou jaara mi nga xam ne ku tudd Sayxul Xadiim tudd ko ci jege ko ci ak waaye jege ko ci pas-pas jege ko ci lépp doyoon na rek diw kuy woy juróom ñu ne borom Saam mi nga xam ne mboolem daañu baax ñi jël nañ seeni xalifa jëme ci moom ngir portaleel nu wax nu kan mooy borom saam mi nga xam ne mooy way juróom kon doy na ci rek koo xam ne mook sëriñ Touba noo bokk Serigne Mor Anta Sali waaye noo bokk soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso ak loola lépp mu nangu cër bu rëy bi yàlla defal Serigne Touba mu jaay bokk gaal lépp jaayanteeg Cheikhul Khadim nekkoon jaamukatu yàlla boo xam ne it la Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikhul Khadim doon wax ba mu koy martial tajarrada li taaati fi dahri kullihi ala llahi ma in aqahum shawaghil yabiit yusalli suma yusbihu saa'ima wa ma juduhu illa kampaari waabidin wax ne borom saam de mooy koo xam ne dafa beru ca topp yàlla ci diiru jamonoom jépp amuloon jenn yitte ju ko gàllankoor ba dox digganteem ak boromam mu ne taxaw guddi di naafila ak di woor bëccëg yi boole ko joxe alalam nekk tab boo xam ne dafay mel ni ab taw waaye yulaazimu awraadan wa ilman wa xikma wa yamuru bil maarufi kulli naazim nekk koo xam ne day taxoo waxtu wu nekk wirdam ndax ku mënoon a taxaw di def ay nawaafil la ndax téeméeri rakk la daan nafila waaye ku ma sa ñëw fi moom it daf lay laay biire di la dénk lu baax waaye lan am keneen ku ne lam yazal yastur uyuba wa yuxtil jàmm yabri bi irdal qadir nekkoon koo xam ne it ku mënoon a nit la ku mënoon yiir nit la waaye daal mooy jëm ji nga xam ne it moom borom saam mi way juróom mooy sang bu siiw bi nga xam ne aw turam tasaaroo na waaye ni aw turam melit noonu la làmboo may yi gën a rëy ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala huwa sayidul mashhur fi naadi dikruhu kama xaaza inda allah azga almawahib wa saada jamiana bilxilmi muawad wa itaamu miskine wa irshadu talibin nekk koo xam ne it ab sang la ci lewet ak baax ak nungoo joxe aw ñam ak dimbale miskine yi waaye nungoo jubal taalibe yi it teg leen ci aw yoon waxtu wu nekk ay laayi biireem it di wéy ci taalibe yëpp kooku kon ku nu ne mooy way juróom doy na ci ngëneel doy na ci tàgg mu nekk koo xam ne it moom sëriñ Baara Xuréje dafa bari ay tawféex ci sëriñ bi ndax mi ngi feeñ euh, jamono ci pàkk bi nga xam ne fi la sëriñ Tuubaa feeñe muy mbakki Bawol nga xam ne Mbàkke fa la sëñ Ahmadou Jaara feeñe di borom Cham waaye fala Cheikhul Khadim feeñe kon tawféex ji ci jiitu mooy moo way juróom yu baax yooyu ñoo bokk béréb buñ feeñee jamono waaye tawféexam it mooy sëriñ bi moo ko wutal aw tur Cheikhul Khadim tudde ko it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu woo xam ne am na lu mu tombeel dajeek moom muy fekk sëriñ bi ne ci wàccaay jëm ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci atum 1895 bu nga xam ne bi sëriñ bi sañcee Mbàkke Bari jógee Touba dem Mbàkke Bari ab diir la fa jógee fekk sëriñ Bousso bi mi nga xam ne mooy nijaayam génn àdduna mu ñëw jaal si ko Mbàkke waaye yëgle waaye it wàccaay wuri yu nekk ngir tukki bu bi ga xam ne mi ngi ko doon waajal di ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam di tukki bi nga xam ne it mooy bi dajale mbooleem gëneel yi doon wutal ko ñaan ci boromam lii kun bi kun sarmadan wajaal masiriya da jawfal fara lil wara mithlul maharin waxtu woo muy waajal tukki boobu ci la jëmm ju sell ji feeñ di Cheikh Mahamadou Lamine Bara Khourédia mu amaat tawfiq it sëriñ bi tuddal ko boppam tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it yeneen tawfiq feeñte muy jëmmi yonent bi ci boppam moo sàkku sëriñ Tuubaa tudde ko kon loolu it day nekkat tawfiq joo xam ne day tabbiwaat ci biir tawfiq yi sëriñ Bara Xuréji waaye sëriñ bi def ci moom loo xam ne waxtu wi ko sàkkale yow tur ba noppi wax na ne bu ko santoon dara mu gàntal duutu ko wàññeete dara ndax defar na ko ba noppi te mënut ko yàq kon wane na ne moom daa ëndaale ngëneel ëndaale tawfeex loola nag tax na ba li mu feeñee ci béréb yii mu jaar fi yi soxna yépp di jaar te moo di xam-xam way juróom sell yi nga xam ne mooy borom saam yi nga xam ne mooy géeju xam-xam dalal ko jàng waaye mu jaar ji borom xam-xam yu rëy yu ràññiku mu di sëriñ Ndam Abdourahman Lo bi nga xam ne moom ci boppam sëñ bi da ko féetale wàllu woowu tam am ci cër bu rëy rëy nekk wéet jaamakati yàlla boo xam ne it moom sëriñ Ndam doy na ci rek kaamilu alquran bi daf ko daan naafila ñaari raka guddi gu nekk waaye nekk borom xol bu yaatu boo xam ne it dafa ëmbal jaam ñëpp yërmande ndax looloo taxoon mu ñaan sëriñ Touba. bu fekkee ne am na kenn ku jébbulu nar a dem ca safaan ba na sama jëmmu fees dell dem ca safaan ba waaye na ñëpp mucc loolu kon doy na cër bu rëy boo xam ne sëriñ Dame am na ko mu jàngal ko alquran ba mu mokkal waaye xam it mu dem ci géeju xam-xam yi doy na ci sëriñ Cheikh Bousso mi nga xam ne mooy taaw sëriñ Bousso be mi bokk ak soxna jaara lépp nga xam ne sëriñ Bousso be melokaan yi ñuy dàkkantale ci melaw jëf ak doxin yépp dafa daje ci moom muy sàmm ak baax ndax doy na ci cër bi mu am rek euh, way juróom sëriñ bu soobee Cheikh Omar Fouti Tall bi ñu ko tuddee nga xam ne wàlli yu mag la moo sàkk woon sëriñ bu soobee bu amee doom mu tuddee ko ko dana di doon ab taawam ndax wàlli yu lay doon loola nag wane na te sëriñ bu soobee jëkk muy samp kër dafa ñaan boromam bu fekkee nar naa am kenn koo xam ne lu doon borom cërub yàlla du samp dafa faggul ak njabootam cëru wilaayitu melawoo sëñ Cheikh Bousso yi nga xam ne yi dafa sàmm woon ba danaan wax ne du du naan meew ndax xamul nag wi ko rattee lekk na mu ruuram déet loolu ak sàmm la jàngal na ko moom euh, sëriñ Bara Xuré waaye it maam Thierno borom Daaru Muxti mi nga xam ne Serigne Touba ko jàngal alxuraan jàngal ko xam-xam def ci moom lépp moom moomu moomu jàngal na Euh, Serigne Bara Khouréji kon day mel ni boo xoolee fi mu jaar yépp kenn ku ci nekk géej la goo xam ne ña nga jàngal ñoo raw te jaar na foofu waaye nag mu jaar na ci yoonu tërbiye ndax boo xamee xam-xam yooyu ba noppi nag ba baaxam yasluku iraamal wusuul ala yadi mukammilin yaqu rasul kon faw nga soobu ci ak tërbiye jaar ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy tàggatee defar ba makaarimul axlaaq yépp mën a daj ci moom ndax ak terbiya mooy mooy mooy setal nit laabal ko defar ko ba man koo sóob ci yoon woo xam ne yoonu ngëneel la waaye mu nekkoon koo xam ne it moom Serigne Bara Khourédia mboolem tedd yëpp dafa daje ci moom te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne ki gën a jege ki ma gën a jege ëllëg yomal xiyaam mooy ki ci gën a rafet jikko wax it ne moom sallallahu alayhi wa li gën a diis ci balance jullit bi ëllëg mooy jikko ju rafet kon jikko ju rafet moom la yàlla tagge yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wa innaka la ala xuluqin azim wax ko ne koy na nga xam ne mbooleem tedd nga jikko yëpp mi ngi ci yow tey jikko yu yooyu yonent bi la ko woon xam ne lewet ak mën a muñ ak yaatu moo tax borom bi wax ko ne ko walaw kunta faddan xalida qalb lan faddu min xawlik fekkoon ne da ngaa nekk koo xam ne da ngaa nekk ku dëgër nekk ku soxor nekk koo xam ne ubbi ko wuloo nit ñi duñ la wër ci wet gu nekk kon jikko ju rafet mooy li mat ba sëñ Tuubaa di ko taggi loolu la ko waxu akmal wara xalqan wa xulqan boxara kon yonent bi jikko la ko yàlla tagge mu nekk ku mat jikko nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ñaan boroomu yow yàlla ni nga rafetale sama bind nang ni rafetale sama jikko kon jikko mooy sàmm ab juddu jikko yi mooy sàmm lépp lu baax waaye Sëriñ Bara Khourédia nekkoon borom jikko ju rafet mooy bi jiitu ci tàdd jikko mooy jaamu yàlla ak ragal yàlla ndax nit ki lu mu bari bari xam-xam te ragalut yàlla bu ñuy lim boroom xam-xam yi duñ ko ca limaale ni ko Cheikh waxam ni waxee inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun koo xam ne euh, ragalut yàlla bu ñuy tudd borom jikko yu sell yi jël yi di ko ca limaale waaye mu nekkoon koo xam ne ku ragal yàlla la waaye ku sàmm la nekkoon koo xam ne ku mën a jaabu borom bi subhaanahu wa taala la waaye imaamu Junayd yi dafa waxoon ne ñeent jikkoo ngi nii yoo xam ne bépp jaam bu mu dajee ci yow bu sa jëf néewoon wala sa xam-xam néewit jikko yooyu dana la yëkkati ba nga kawe ñeent yooyu boo ca xool day daje ci jëmm yi nga xam ne mooy Sëriñ Baara te mooy alxelm wa saxaa wa tawaadoo wa xusnul xuluq te moo di lewet waaye toroxlu nag wàcce sa bopp te doon boroomu cër te dis gan waaye nekk ku tabe waaye nekk borom jikko ju rafet loolu ay jikko la yoo xam ne dañuy wax ne kum ne ci yow dana la yéege ba nga yëkkati ko te loola moo taxoon mu xajoo woon ñëpp waaye it nekkoon borom jikko ju yaatu nekkoon borom jikko ju kawe kawe waaye nekkoon koo xam ne it ku sàmm ndax sàmm ci lu bari ak ci lu néew ki bëgg a egg ci yàlla euh, bokk na ci gànnaar yi muy yóbbaloo mooy sàmm ni ko Serigne Touba di waxee ama silaahu waxul saytu wara bi yakunu xaafian xam ne tabax kon day mel ni mënul ñàkk ci yóbbal booba li ñuy tuddee sàmm waaye mu nekkoon nit koo xam ne ku ku sàmm la nekkoon nit koo xam ne it euh, ku tabe la tabe ci dara jaam waaye tabe yi ci ci alalam tabe ci léppam moom Serigne Bara nekkoon koo xam ne it euh, ku yaatoon ab dënn la taxoon mu xajoo ñëpp ci meloy biir waaye xajoo ñëpp ci meloy bitti waaye nekkoon ku dëggu koo xam ne it ku dëgër këng la koo xam ne ak dëgg du ca ragal mukk ak yeddeel ci ku bàyyi koo ci aji ku yedd waaye nekkoon koo xam ne ku mandu la nekk koo xam ne du parparloo waxtu wu nekk fa dëgg féete foofa rek lay jublu waaye nekk jàmbaar la te yonent bi sallallahu alayhi nee na yàlla dafa bëgg jàmbaar ba ci rey jaan sax gis na sëñ Tuubaa bi muy tagg saxaaba yi kullun shujaa la waaye ñooñu kat ñëpp ay jàmbaar lañ waaye seen jàmbaar ga moo tax nekk ay gaynde yoo xam ne bu jàkkaarloog noonu ya mën a jëflante ak ñoom mu nekk jàmbaar nekk boroomu fit nekk ku dëgër nekk ku dogg nekk koo xam ne it ku mënoon a dundal ak bokk la waaye nekk murid sadiq te melo yiy tegtalee melo yu murid sadiq Sëriñ Tuubaa da koo tënk wax ne ñeent la doon ko ne am na yeneen yu yaatoo yaatu waaye ñeent yi moom sëñ bi dafa tënk wax ne sifaatu sadiqil muridi bixtisaar arbaatu nadamtuha xawfa ixtiraar asidq fi mahabbati cheikh abad su mantisaal amri ay suwarat tarkul ictiraad mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw wa maahu salabul ixtiyaar li xirni dannihi bila inkaari sëñ Tuubaa da ne melo yi murid sadiq ñeent la yaxal naa ko ngir bañ ak woru mu ne ba ca jëkk mooy bëgg sëñ bi te bi dëkk maanaam sa cofeel ci bi nekk lu dëgg te lan mooy sopp sëñ bi euh, dañuy wax ne xosnul ixtifaa li aathaari alqadimi dalaala in ki bëgg gi muy bëgg sëñ bi wér ci moom faw day day nungoo topp jeexintali sëñ bi topp melo sëñ bi dox ci dox yi du sëñ bi waaye kenn du ne bëgg naa sëñ bi rek sëñ bi jëm nii nga jëm nii déedéet law kaana qawluka saadiqan la taatahu inna al muhibba li man yuhibbu mutia képp koo xam ne ak bëgg sëriñ bi li koy firndeel ci moom mooy ni muy toppe jeexintali sëriñ bi ak ni muy roye sëriñ bi kon bi jiitu ci melaw murid sànni ci bëgg sëriñ bi sëriñ Baara Xuréja ñu ko bëggoon Cheikhul Khadim la ndax ku ko doon roy la ci lépp ku ko doon topp la ci lépp ba ca topp mooy jëfe ndigal jëfe ndigal tax na ba ab liggéeyam teel a tàmbali nga xam ne bi ñuy liggéey jumaay euh, jumaay njëriñ ji bokk na ci ñi seenu sas teeloon a mat ci mën a jëf mën a joxe addiye waaye déet daawul tàbbi ci génn ci làmmiñam tàbbi ci nopp sëriñ bi te ndigal mooy liy tax taalibe bi mën a yàgg sëriñ Mbay Jaxate nee na lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba foog njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sa sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxi njariñ mu dina jox ay njariñ kon euh, ab bi li koy dimbale mooy jëfe ndigal te moom ku saxoon ci ndigal la moom sëriñ baara ba ca topp nag mooy tarkul ixtilaat bàyyi diingat bàyyi gaaral ab taalibe bi bokk na ci liy tax mu yegg day génn ci xolam sikki sakk day génn ci xolam werante day génn ci xolam wóor naa gu wóorut déedéet day fexe ba lim jàpp mu dogu ca dogu gu wóor ndax sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ne uri ni wa ci maliki sabila kullu muridin sadiqin nabila sëñ Tuubaa nee na bépp murid bu dëggal tege ca yoon wa man mii maay ki lay xàllal wan la yoon ba nga leer te loolu mooy li borom bi subhanahu wa taala wax wala si na jahadu fii naa la nahdiyanna subulana gaa ñi topp ci yoonu yàlla yàllaa leen di orienté orientation boobu day ñëw ci Cheikhul Khadim waaye sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne dëggal na jaar ci yoon wa man mii maay ki lay wommat ba nga ba nga jub tege ci yoon wa uri li wa ci maliki sabila kullu muridin sadiqin nabila ba ca topp mooy bàyyee sëñ bi lépp mooy bañ a am ak tànn ndax aw yiw nekkul ci liñ la tànnal waaye aw yiw ngi ci nekkul ci li nga tànn waaye aw yiw mooy liñ la tànnal te borom saam day mas naa dajale mag ñu wax leen na leen seen waa ji ci laa bëgg a waxtaan ak yéen woowu leen ba ngeen ñëw mu door a wuti lu leen jox waaye da ko am ba noppi door a woote kon loolu mooy mooy yi loolu la borom saam doon wax wax na seen Tuubaa day négul ba nit ñi ñëw mu ne leen dajale leen jox ma ma toggal leen wala lu waaye am andi jox ma de daa dajale ba am lim am ba noppi na kaay leen ñu bokk kaay leen jariñ loolu la Sëriñ Tuubaa def loolu la borom sàmm wax kon nag melo yooyu euh, moom la Sëriñ Baara Kula jaamoon muy jeex ci Sëriñ Tuubaa loolu moo taxoon it daana wax ne Sëriñ Tuubaa xëyewul kenn gonte ma ba booba ne maanaam Sëriñ Tuubaa xëyewul kenn gonte ma kon ba booba kon loolu li muy li muy li muy tegtale mooy mboolem li sëñ Tuubaa di sédd ci ay cër na ko ci wàllam ba mu jëm sët te bala ñu ko gën a xam nag muy ëllëg yowmal xiyaamatul akbar kon ba booba loola tax sëñ Baara Xuré yi daan ko wax mu di koo xam ne taxawaay bu rëy boobu la amoon ci ay melo mu am it lu jafe ci Serigne Touba mooy ko waxoon ne yaag sa jigéen lu leen waaye jox ci addiye lekk leen bu ëllëgee may fay loolu it tawfiixi sëriñ Baara Xuraja la nga xam ne kon wóor na leen ne boo jébbalee addiyee sëriñ Baara Xuraja am na assurance bu wóor ndax sëñ bee na ko may fay boole gi kon loolu mel na ne ni ak jagleel na ci cër boo xam ne yàlla séddale ko sëriñ Baara Xuraja waaye mu nekk koo xam ne it li ko war ci diineem lépp da koo jëf li ko war ci bokk gi da ko def ndax li ko war ci bokk gi loolu moo indi relation bu rëy bi am ak ñëpp moom sëriñ Baara Xuraja nga xam ne foo dem ci ëtt kër Serigne Touba yi ëtt lislaam yi fekk fa ay jëfam fekk fa taxawaayam ngir melaw yi nga xam ne yàlla séddewoon na ko Serigne Bara Khourédia mu nekkoon koo xam ne it euh, taxawaay bi ko war ci ay jëf ak melaw ba mu wuutoogul borom saam ba bi mu wuutoo borom saam it tooge jataayu borom saam te wuutu borom saam doy na sëkk ab cër bu rëy ngir ki borom saam doon nga xam ne bi mu génnee adduna moom borom saam. Serigne Touba moo wax ne bu du loon alxuraan du hadis du njariñul bindeef yi gisatuma lu ma jaral fanaan genn guddi ci àdduna kon ku wuute ab jataayam toogee ko rek am na leneen lu ca nekk te mu wutu ko ci 1939 loola it nekk taxawaay bu rëy mu am relation ak la ko tàmbalee si Amadou Moustapha al Karim ci melaw jëf ak taxawaay ndax li ab taalibe war a meloo mooy xam boppam di ab taalibe wane loolu ba noppi ci jëf waaye xam kim doon nag ci wane ne cër bi ko ay way juróom bàyyee waaye cër bi nga xam ne moom la féetewoo du ko neenal mukk ci xam fi mu war a teg tànkam ci ak dog ak dogu ak yitte mu nekk koo xam ne ay jëfam dafa ràññiku doy na ci buñ la waxoon ci ay injazaatam ñu ne la moo lutti seen mbàkke loolu doyoon na sëkk melo waaye it mu tax taxaw woon ak Cheikh Mouhamadul Fadal Serigne Fadilu Mbàkke bi nga xam ne kenn ku ne xam ne cëram kenn ku ne xam ne dayoom kenn ku ne xam ne tolluwaayam sëriñ Baara Xuré ji taxoo woon ak moom lool amoon ci moom it cër bu rëy amoon ci moom it wàccuwaay bu yaatoo yaatu loola taxoon na ba liggéeyu jumaay Touba ji it mu nekk. ah jërëjëf président maa ngi siyaare jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, monsieur le préfet Ibrahima Samb euh, jërëjëf sama xarit la sama lépp la gis na li mu def rek wane na melawoo jërëjëf kon. diggante ba Cheikh Amadou Fadal rek doy na ca melo doy na ca ngëneel mu taxaw ànd ak moom ci léegi jumaa ji ak ñëpp ngir mu mas sa taxaw te ko wéttali ci wet bu ba loola firnde je mooy doy na ca keroog bi sëñ Fallu jullee jumaa ji ba noppi sa jaada bi mu taxawoon sëriñ Baara Xuree ji la ko jox ngir mu nekk seereem waaye loola it lañ cay gisaat mooy 1963 bi ñu ubbi jumaa ji ca la laxas dem dëkkaale ji ak borom nga xam ne kon wane na ne taxawaay bi ko war ak jëf ya lu ca nekk rek mat na waaye mu nekk koo xam ne it euh, moom Serigne Baara ci melo yi ko suñu borom jagleel ak tedd nga jim am yëpp boo ko doon seet euh, da ngay xam lim am Serigne Touba lahu min ash-shaykh xawdun laa yafuusu bihi siwaahu fa asalu dul adhaali wal xikam dawil adhaali wal xikam am na ci Serigne Touba cër boo xam ne it kenn amu ko kon laajal borom xel yi na leen kan mooy sëriñ baara xuréy mu ne ko cheyqun taqiyun muridun sadiqun wa lahu ladal xadimi mazayaatin wa min bahimi nekk koo xam ne it euh, ku ragal yàlla la ragal yàlla mooy jëfe li la yàlla digal bàyyi lim la tere waaye nekk murid sadiq gi ma doon waaye nekk koo xam ne it borom yi may bare bari yu yu mu ne nekk koo xam ne it ku bari woon ay addiye la yu ñu daan joxe waaye nekk koo xam ne it waxtu wu nekk ay addiyeem day tegtaloo jël ko sëñ mu ne arus wa diin wal islah fi abad chaaru sa cheikh wal infaaqu lil xaram mu ne tey bu ñu doon laaj kan mooy Serigne Bara Khourédia da nga naan ko jub koo xam ne diine mooy mandargaam waaye yéwénal la ak al islah daatul bayni mooy sëñ Bara Khourédia pusa la woon ndax fi mu position bi mu féete woon dara yëquwul jaare ci moom ku mënoon a la ku mënoon a rafetal la ku mënoon a defar la nga xam ne loolu ñi mu bokkaloon yoon wi xamoon nañ loolu te ci jamono yëngu yu tar wala lu jafe ci la daan taxawee loolu mu ne daal loolu mooy mandargam Serigne Bara Khourédia moo nekkoon symbole am waaye nag di jox alal way ñàkk yi kon ku mënoon a joxe alal la kon melawu woowu ko yàlla jagleel ak dox yu yaatu woowu mu am la muy tegtale mooy wone rek cër bu rëy bi nga xam ne euh, yàlla séddee na ko Serigne Bara Khourédia moo tax it ba léegi waxtu wu nekk tabki samaawaat wal ardu jumlataha li faqdi rukbin shadidin duna ma wahimi jëmmi suuf si ba léegi sax day jooy ak asamaan si kan lay jooy mooy Serigne Bara Khourédia bi nga xam ne moo nekkoon sàqum way ñàkk yi waaye moo nekkoon wéeru waayu jiriñ yi waaye moo nekkoon it ndimbalaakonu jaam ñi Mbacké loolu it wane woon na taxawaay boobu Serigne Bara Khourédia amoon mu nekkoon koo xam ne it sang bu tedd la boo xam ne ab docteur bu xereñ la maanaam ci xam ayibi xol ci koo xam ne alkande nar na laa gaar Serigne Bara Khourédia ku mënoon a faj tawat la tabibun mutqin alim ku xereñ la woon koo xam ne euh, dafa xamoon adubaul qalb saqimun koo xam ne xolub texee di ñëw lu kon la Sëñ Tuubaa doon wax ne kullun xabirun bi anwaa'il qulubi gaa yu baax ñi dañu nekkoon ay spécialiste ci xam tawati xol Serigne Bara Khourédia ci ñooñu la bokkoon waaye nag yaa xaamilan raayatal islaami duuna mira yaay ki nga xam ne ah, da nga gàddu drapeau bi l'islam ci lu amul benn werante sabaxta jiilaka fii daarayni kullihimoo yow de say kem say maas jiitu nga leen yow Serigne Bara Khourédia ci adduna waaye jiitu nga leen ëllëg yowmal xiyaam kon loola dana tegtale ah, ba booba tuuba li man zaarahu lillahi mutahila wallahu yaasimuhu bil kasbi wa sax mën na xam mooy koo xam ne képp ku jóg jëm si ci moom ngir siyaare ko nee fekk ak texe ñeel la ngir ngeneel yu jox waaye axlaaquhu intasharat afrique wa fii bawalin tamit daalem wa maal xidam xul maal xam ne it ay jikkoom yu tisaaroo la du woon koo xam ne rek dafa baax ci genn wet ñu ne sëñ Baara Khourédia moom Mbàkke wala sëñ Baara Khourédia moom Saam waaye sëñ Baara Khourédia àdduna bépp la ngir jikkoom yu rëy yi nga xam ne euh, tasaaroo na ci àdduna bi àdduna bépp man koo seere man koo xam man koo gis kon euh, loolu lenn la ci melo yu rëy yooyu ko yàlla jagleel muy sëñ Baara tey jii doy na ci màndarga rek bu ñuy tudd Mbàkke Tuubaa yi mën a tudd wax ne saamu sëriñ Baara loolu it la muy mooy kon euh, melo yu ak jëfin yu sell ak doxin wu rëy xam ne euh, yàlla séddee na ko Serigne Bara Khourédia ci biir ak ci biti loola mooy taxawaay bi nga xam ne cala yare njaboot gi mooy taxawaay bi nga xam ne ca la njaboot gépp doxe kon alhamdulilah yàlla na yàlla yàggal fi Serigne Cheikh Tedd bi nga xam ne moo di ab xalifaam ak mboolem ay ay ay ay rakkam yëpp waaye mboolem sëtëm waaye mbooleem ay taalibeen ndax taxawaay bi taxawaay bu rafet la waaye taxawaay bi it taxawaay bu bu mat la kon loolu la ñuy jànge ci liggéey bu rëy ak taxawaay bu rëy bi nga xam ne Serigne Bara Khourédia amoon na ko nekkoon murid sadiq nekkoon jëfaakoon boo xam ne aw moom marqué na ay apprentam ci biir yoonu murid dama ko waxee keroog rek diine jëmul Serigne Bara Khourédia ak bokk jëmul ba sëriñ Bara Khourédia waaye yoonu murid yi jëmul sëriñ Bara Khourédia lu ko war ci diine def na ko lu ko war ci ak bokk yi def na ko lu ko war ci yoon wi def na ko kon loola yàlla na ko yàlla fayal te doon li barkeen ci jaboot bi noo ngi nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi yépp noo ngi leen jox seen wàccuwaay di leen ziyaare bu baax ak na bu mu tuddee euh, sëñ Mame Balla moom sëñ Bara jaare na ci moom nuyoo sëriñ bi waaye di nuyu euh, sous-préfet di Ibrahima Sall moom mi nekk suñu xarit nekk suñu wëlëre nekk it euh, koo xam ne dafay dox ci administration waaye nekk na nit ku waaye koo xam ne jiitalu dara ci sëriñ bi ci mbiram sëñ Tuubaa la jiital ci léppam loolu may ko mu nekk ku mënees nekk di koo xam ne it ku ku woyof la koo xam ne ku simple la loolu moo nu boole mu nekk koo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi déggante te lépp rek jëm ci sëñ bi kon noo ngi lay ñaanal ci barke pàkk bii nga ñëw yàlla suñu borom gën a yokk say say daraja gën a yokk say say say garaat gën laa dolli bu baax a baax euh, ñëw nga nag foo xam ne euh, suñ lépp waaye ñëw nga foo xam ne it lu fi waaye duul rek am na fi ndax ki ko ci di sëriñ maam borom saam lépp sëriñ Touba la waaye seriñ Baara mi fi nekkit léppam la waaye njaboot gi fi nekk sëriñ Cheikh Thiat mi nga xam ne noo koy ñaanal yàgg ak wér ba mu yeggale naal yépp boo ñëwee ci bërëb bi rek da ngay xam ne bérébu diine la bérébu lislaam la la fi maam yi bàyyi woon courage bi fi nekkoon patrimoine bi ñu fi bàyyi woon changé wuñ ci dara muy jaamu yàlla ak liggéey sàmm seen diine sàmm seen ngor kenn déggu leen ci lenn loo leen warul dégg kon nag ñoo ngi la ci faggul te sëriñ bi ñoo ngi koy wax mu dolli koo ñaanal ñaanal ay kilifaam ndax ku baax la ku woyof la du tey jii rek waaye waxtu wu nekk ñu ngi jokkoo ci lu baree bari te comportement bii rek lañ xam ci moom mooy nekk koo xam ne Euh, ku baax la ku ku ku ku wayef la euh, te liggéey bii nu yor nii rek moo ci yoon wi ndax am na ñoo xam ne du ñu ko laaj xam na ne it ñoo ko moom waaye ku leen ko jox it euh, da xam ne ñi ngi ko jox ñoo ko moom kon nag ñoo ngi ciy ñaan yàlla dogal na ñu ngi bëgg dugg ci décembre at mi jeex deux mille dix neuf ñu war a tàbbi deux mille vingt ñoo ngi ñaan yàlla béréb yu ne teew nga fa ci bari waaye bii moom boo fi jógee. yëgaat ne ñëwoon nga saamu sëriñ Baara ndax kat ñeenti pay la fi sëñ bi dale ci borom sëñ Tuubaa nee na borom saam ku ko liggéeyal yàlla dana la fay yonent bi dana la fay man mii Ahmadou Bamba danaa la fay te borom saam am na fay te ku nekk di liggéeyal borom saam it yaa wuutu sëñ Tuubaa ci liggéeyal ko ndax sëñ tubaa boroom saam mooy léppam kon lu ko waay defal it sëñ bi nga ko defal ñeenti pay yooyu nag ah ku ci mus dana xam ne mus na ci fii am nay saam de te de am na lu mu ci waxoon. fexeel na ba teggi ci saam rek te te saam yi li tax mu yéen yéeme moom doo doo dajale bii di dajale bee fi ne benn saam ngay tonni yeneen ñetti saam yi ne man fu saa moroom nekk ma ñëw fa ñooy indi seen bopp fexeel ba jot benn bi rek man nag xam naa ci daal mu jarrabun saxiix laa la wax waxuma la ñuy tatoneeg nangam ak nangam lan déedéet lu wóor a wóor laa la wax te yéene naa la ko del fas rek yow daal minute bu ne fasal rek yàlla na yàlla dolli xéewal yi dolli ñu toog yéen baal leen naa yéen ñëpp maa yàlla yàlla nangu xeewal yi tawfiq yëpp presse bi noo di sant jërë ngeen jëf ci turu sëñ Mahamadou Makhtar Diop yéen ñaan yàlla dañ leen a jàppale dañ leen a taala wa barakatu